ba tey ni ñëw ak yéen ci seen dars ci durus yi leen baaxoo di defal ci téere Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu boobu nga xam ne mooy ruuxul adab nga xam ne moom la njëkk a taalif ci dundam ñu ñëw ak yéen ci juróom-ñaar fukkeeli dars dëppoog juróom-ñaar fukkeeli bayti ci téere bi bàyyi ne la waa xayru zi min ma xawar rijaalu rijaalu zid tariqi in anaalu bàyyi mu ne la zikkar yam la tuddoon muy comme xisbu tadarrui muy salaatul fatihi muy allahuma alayka muy wirdul fatiha yooyu noonu yëpp jéem koo sàkku wa xayru zimi maxwa rijaalu ak yeneen yi nga xam ne góori tariqa bi am nañ ko peeg nañ ko mi ngi ci ñoom moo tax mu ne la wa xayru zi min ma xawar rijaalu ak yeneen yi nga xam ne góor ñi fàggu nañ ko ba am ko mu bañ nga foog ne góoru yàlla bu ne ci la la ebal mu tënkaat la ne la rijaalu zi tariqi nag góori tariqa bii laay wax in anaalu ndem sàkku nañ ko mu ne képp ku nekk tariqa bi rek war ngaa sàkku loolu góori tariqa bi ne ci tariqa bi ba yàlla may leen chance bañ fàggandiku ba am mbóot yooyu noonu bàyyi radiallahu anhu mu ne la jéemal a góorgóorlu yëkkati sa itte ngir jege góor ñooñu noonu ngir nga mën a am ci loolu nga xam ne fàggu nañ ko ci azkaar yi nga xam ne mi ngi ci biir tariqa bi ni waaye duut ne da tëdd rek nelaw maa ngi ci biir tariqa maa ngi defe defee awraade lazima rek pare na déedéet du ne da ngay dégg azkaar yooyu rek ñi la koy wax ci biir tariqa bi rek nga tëb ko jëfee déedéet du ne dangay ngay jënd ahzab wa awraad bu cheikh na ahmad tijaani nga xam ne ci lañ dajale Muhammad Xaafis dajale wérdu yi cheikh na ahmad tijaani doon wérdu ci bés bi rek nga ne xaaral ma jënd ko rek jëfe ko mu ne la déedéet du noonu de day lay laaj nga jéem koo fàggandiku sàkku ko ci góori tariqa bi ñu jox la ci ndigal pour nga mën koo jëfandikoo ndax awraadi laazima yi nekk ci biir tariqa bi am na ci yoo xam ne euh, buñ la joxee ndigal rek am nga ndigal ci jëfee ko waaye am na ci yoo xam ne sax nit dina am ijaaza litlaaq ba pare to du am ndigal ci ñeenti awraad yoo xam ne il faut mu laaj nga am isnul xaas pour mën koo am il faut mu laaj nga am isnul xaas pour mën a am awraad yooye it nga xam ne awraad ixtiyaari la ci biir tariqa bi nii kon nga gis ne awraad ixtiyaari yi nekk ci biir tariqa bi eh, yii ku yàlla may ndigal ci tariqa bi rek mën nga koo joxe waaye am na ci ñeent yoo xam ne nit dina am isnu mutlaq sax te du am isnu ci joxe leen waaye nit dina am isnu mutlaq ci biir ijaaza boobu ñu joxaale ko ci ndigal ñeent eh, asraar yooyu nga xam ne ñi ci biir tariqa bi mu mën koo jëfee moo tax mu ne la kon nan ko sàkk waaye na ko sàkku ci góori tariqa bi lool moo nekkoon seen dars yéen ci juróom-ñaar fukkeeli dars ak benn dëppoog juróom-ñaar fukkeeli bayt ak benn ci téere bi di roxul adab bay continuer yow ne lakinna sirrahum bi jiddin qad yunaal laa bil huwayna wa madaaratu rijaali mu ne la waye nak limbirte mbir moy na sirrahum mboti gori tariqa bobu nonu bi jiddin qad yunal ci deggu ak ci itte ci ngoy amé waye nak labil hoyna du ci lu yomb rek wa madarat rijali ak naxante ak ñom rek pour am ko de dedet dalay laaj nga deggu yello am iznu bi ci shurudim laaj ni dog la jox ndigal ci mboot moomu noonu nga mën koo am moo tax mu waxoon la ne la eh, jéema la taqoo góor ñooñu noonu ngir nga am ci ñoom mboot yi nga xam ne fàggu nañ ko ci biir tariqa bi nii pour nga mën koo jëfe waaye mboot yooye nag lakinna sirrahum bi jiddin xat yu naal ci dëggu rek ci nga koy amee tam jaral la ci dëggu lañ koy amee tam jaral la da la jaral lu ne na la jaral nga xidma sëriñ bi ci sa doole na la jaral nga xidma sa sëriñ bi ci sa alal na la jaral nga xidma sëriñ bi ci lépp loo xam ne soo ko defee am ngërmaaneem pour nga mën a am ndigal ci mbóot yooyu noonu nga xam ne yàlla jox na ko ko ci biir tariqa bi moo tax bàyyi na la laa bi way naa duut ci lu yomb rek de ah sa sëriñ bi soo xarit la xaaral ma ndax ko nii xaaral ma jël kànnaasam bi xool ko wala sëriñ ba wax na ko nii rek xaar moo jëfee ko nii mu ne déedéet duñ ko amee noon de wa ma daaraatu rijaali ak naxanteeg ñoom pour jot ci mu ne déedéet da ngay def luy tegtele na yow yelloo nga am mbóot mi bu boobaa ñi yëkkati mi jox la ko te lan sirru yasri maal izn mbóot mi ngi doxee ci ndigal waaye nga dégg ko rek jëfee ko ta amoo ci ndigal da dem ba sonn waaye doo ci gis résultat gis ci lor mooy ëpp gis ci résultat naxante góor ñi ci seeni mboot ba gis fuñ ko bind nga roppi ko ndànk bindaat ko dem di ko jëfee lor la lay gën a jëriñ ci mu jëriñ la moo tax mu ne la boo soxlaa jëriñoo mbóoti tariqa bii ni ak azkar yi ci ne nga xam ne azkar ixtiyaare la demal uti ko ci góori tariqa bi waaye boo koy utit na nga ànd ak pas-pas ak dëggu buy wane na lii moo la tax a jug te jaral na la waaye duut ci naxante nga koy amee duut ci lu yomb nga koy amee waaye yaa ngi koy amee ci xidmaa leen bañ gërëm la jox la ndigal ci mboot mi bu boobaa nag nga mën a jëriñoo mbóoti tariqa boobu noonu loolu moo nekkoon seen dars ci juróom-ñaar fukkeeli dars ak ñaar tolloog juróom-ñaar fukkeeli bayti ak ñaar ci téere bi bàyyi di la wax ne bal biltizaami ma ataw luzuman wa bi atbaai qawlihim malzuman mi ngi la do wax ne la jéema la sàkku mbooti tariqa bi ci ñooñ tariqa bi mu ne la waaye ñooñ tariqa boobu seeni mboot <coughs> mu ne duñ ko amee bil huway naa ci lu yomb duñ ko amee ci madaaratu rijaali ci naxanteeg moom waaye bi jiddin ci itte ak ci dëggu lañ koy amee bal walla sax lii mbir biltizaami ma ataw luzuman nga taqoo lépp loo xam ne waralal nañ la ko sas nañ la ko pour nga takkoo ko wa bi itbaaxi te nga topp xawluhum seeni wax malzuman yi nga xam ne moom lañ la saxloo nga sax ci pour nga am mbood yooyu noonu ci ñun tariqa bi day laaj charte yiñ la ci teg nga jëfe charte yooyu liñ la digal nga takkoo ko bu boobaa rek bañ gërëm la gis na yelloo nga yooyu ñu jox la ko bu boobaa tur yi mën laa jëriñ waaye doo ko amee ci ne naa moom pour jot ci suma ci jotee wan ko ginnaaw wala leneen déedéet waaye bël biltisaami ma ataw zuman lépp loo xam ne indil nañ la ko ci ne la taqool lii boo ko taqooyee da am nangam wala taqool jëfee lii bu boobaa danaa la jox nangam wala indil ma nangam ma dog laa jox tuur nangam mu bu boobaa boo lool a nga xam ne moom la la war lool mu bu boobaa danga mën a am mbóot ma danga mën a jëriñu it ci mbóot mi nga xam ne moom la lay jox li tax mbóoti tariqa bi yooyu noonu ñu koy jafeel nit ki pour nit ki xam valeur yi mbóot mi parce que doomi aadama lépp lu ko yomb rek mu oyofal ko sàgganee ko lépp lu ko yomb rek day foog ne lii du dara waaye doomi aadama ci lépp loo xam ne daj na ci coono dina ko fonk ndax day xam ne bim ci jot ak sonn na lool moo tax mu jot ci moo tax bàyyi di la kon yow mi soxla wérdu yi nekk ci biir tariqa bi te muy awraat ixtiyaariya xam ne nit ki dina ko téye mën koo jëriñoo ci moo xam mu mën di doon ci wérdu yooyu noonu te bokkut ak awraat lazima yi mu ne yaa ngi koy amee ci topp mag ñi di jëfe seeni ndigal di bàyyi seeni tere bu boobaa rek nag nga egg ci doyok mën a am mbóot noonu mën a am ndigal ci mbóot yooyu bu boobaa boo ko jëfandikoo yee mbóot yooyu jëriñ la loolu moo nekkoon seen dars ko ak yéen ci juróom-ñaar fukkeeli dars ak ñett tolloog juróom-ñaar fukkeeli bayt ak ñett bàyyi di continuer yow ba tey na la laa taxtaran taxaaduda al aqraadi an il juluusi indahu yaa faani mu laa tax taran tànn yow taaliba bi bul tànn di toog ci grand place yi taxaaduda al aqraani di waxtaan ak maas gi anil juluusi indahu walis dem toog ak sëriñ bi yaa faani rawatina yow taaliba bi nga xam ne wax nga ne am nga fanaaw yow taalibe bi nga xam ne wax nga ne am nga fanaaw mu ne tànnal toog ak sëriñ bi walis toog ak maas gi ndax li ngay toog ak sëriñ bi mën nga cee éegee ndax wax nañ ne mën taxaqaqa bi xaalatin lam yaxloo xaadiruhu minhu nit yàlla waxtu wi def taxaquq yàlla di ko éegee ci xaal bu mën di doon ñi toogaale woon ak moom duñ sooy ci toog giñ toogaale moom kon yow taalibe bi bàyyi mu ne kon bul tànn toog ak maas gi ci grand palaas yi di wax lu ñor lu ñorut wëlis toog ak sëriñ bi ndax toog ak sëriñ bi moo ëpp ci yow njëriñ toog ak taalibe bi ndax sëriñ dina jëriñ taalibe ci rek taalibe bi di ko xool mën na cee jëriñoo sëriñ dina jëriñ taalibe ci taaliba bi dend ak moom sëriñ dina jëriñ taaliba bi ci muy wax taalibe bi di dégg rawatina aarif yi ndax baay wax na ne ay aarif ay niir lañ moo tax ñaari aarif fuñ dajee mu ne buñ xoolante suñ waxee ak suñ waxut yëpp taw war naa am taw mooy lan ku ne war naa yëg ci sa bopp yokkute war nga yëg ci sa bopp njëriñ loo xam ne ci xoolante boobu rek ci ngeen ko am ndax fu ñaari niir daje rek taw am moo tax mu ne la temps bi ngay jël di ko perte taxadusal aqraani di waxtaan ak maas gi ci àdduna ci lu lay soriloo yàlla na nga ko tànn dend kook sëriñ bi ngir bu boobaa nga mën a jëriñu ci sëriñ bi ci dend goog nga xam ne dend nga ak moom ci xam-xam bi mu lay wax nga koy jëriñoo ci dend ak moom ci xidma gi nga koy xidmaal di ci am jëriñ ci dend ak moom ci bépp xaal wala maqaama buy wàcc ci moom ci jamono boobu nga seddu ci loolu moo gën ci yow nga sori sëriñ bi di dem di toog ak maas gi nga xam ne li ngeen di waxtaanee da lay sori loo yàlla rek loolu moo nekkoon seen dar sax ñeent bàyyi di la wax na la idan fala tatma bi naylil asraari fa sirru laa yunaalu inda al ba tey mi ngi wax taalibe bi li ëpp solo ci moom pour mu jëriñoo ko mooy yow taalibe bi bul nekk koo xam ne li la ittee rek mooy mbóot mi déedéet mu ne la bul jël sa dund yëpp def ko bi nay lil esraar ci sàkku mbóot rek sirru sirru sirru bii lan la sirru bee nangam sirru balee nangam sirru bii bu ma ko defee am xaalis sirru bii bu ma ko defee eh, am tasarrufaat ci nangam déedéet bul jël sa dundu lépp wéer ko ci yow sirru sirru sirru rek déedéet mu ne fa sirru laa yunaalu indal ijhaari mboot duñ ko am indal ijhaari ci lu lu fës duñ ko am ci lu kawe bañ na ko ba nim tudd la tudd sirru mooy mboot mboot mooy lu nëbb kon mboot ñu ngi koy amee ci lu nëbb waaye duñ ko amee ci lu feeñ mooy lan mboot waxtu woo ko feeñate feeñalee rek dootul mboot bul nekk taalibe boo xam ne fala tatma bi ne lil yi mbóot moo am rek yaa ngi koy kañoo di ko toog di ko wax di kañoo mboot moomu mboot mii sama mboot mii mboot male mboot bii nangam bu boobaa rek nekkatul mboot te Cheikh Tidiane wax na la laa yaktumu sirra illa kullu fi thiqatin wa sirru inda amin naasi mabdulun Cheikh Tidiane mu ne kenn du nëbbu mboot lu dut koo xam ne du thiqa la la koo xam ne am na am na am na am na kollëre am na kóolute ci ñi dénk ko waaye inda li amin naasi ci ñu yées ñi rek mob zulun ñooñu ñooy feeñal mbóot képp koo gis muy feeñal mbóot rek kooku ku yées la waaye képp koo xam ne lu siqati nit ku am kollëre la nit koo xam ne kuñ am ci moom confiance la kuñ doyloo la kooku du feeñal mbóot moo tax Cheikh Tidiane da daan bëri lu mu daan répété السر عندي في البيت له غلق ضاعت مفاتحه والبيت مغلوق mbóot mi daal maa ngi ko yore waaye ma ngi ca néeg ba te dañ koo tëj mu ne te caabi ja réer na te néeg baa nga tëju loo xam ne ñu ngi ko tëj caabi ba réer na néeg baa nga tëju kon mooy ne loolu mooy doy ak nëbbu moo tax mu ne bàyyi doon wax naan profité leen ci dee leen i nëbbu seeni mbóot yi dee leen i nëbbu si asraarul uh, rububiyati mbooti yàlla yi ci di ko walis ngeen koy feeñal ci biti mu ne lu gën a xaraam ci yàlla gën a xaraam njaalo mooy ngay feeñal ay mbooti yàlla ci kanam yi ñoo xam ne xamuñ yàlla moo tax bàyyi di la wax na la bul nekk koo xam ne mbóot moo xam rek fësal ko feeñal ko ba weer ko mu ne déedéet mbóot duñ ko amee ci weer mbóot duñ ko amee ci fësal ko ci kaw waaye euh, fa sirru mbóot daal laa yunaalu indal ijhaar duñ ko amee ci eh, feeñ waaye indal eh, sirr la ci lu ñuy nëbbu la tànk mi ngi nëbbu rek mboot la bu nëbbootu nag dootul mboot moo tax di digal taalibe nañ góorgóorlu ci seeni mboot yi ñu koy denc bañ di ko fësal loolu moo nekkoon seen dars ci juróom-ñaar fukkeeli dars ak juróom dëppook juróom-ñaar fukkeeli béyte ak juróom bàyyi na lakin iza lazamtahu fi bilma talibe bay mo nale yow serigne bi dal waxtu wo takko yo talibe bi dal waxtu wo takko ak serigne bi ci lu upp ci say waxtu mo na takko go nga takko ak serigne bi qad tafuzu minhu dang ci amé raw dang ci amé tono dang ci amé it euh texe bilma talibe ci mbolé mi sa ci akutef yo talibe bi bu nek ko xamne dangay ngay def ta tammox li leen di asraar yow asraar rek la itteel wala nangam waaye takkook sëriñ bi na la itteel ndax bari na ku takkook sëriñ bi dina dem ba amee ci sëriñ bi bil ma taali bi mboolee mi càkkute fam moo tax mu ne la bari looy takkook sëriñ bi bu boobaa bokk na ci njëriñ la nga cay amee waqat tafuuzu minhu bil ma taali bi danga ame ci takkoo gi nga takkook sëriñ bi say càkkuteef Baay radiyallaahu anhu waxoon na ne deleen bari lu ngeen di toog ak man ci seeni waxtu yu bare bari bari ngir ngeen jëlee ci man adabu suluk comme ni ngeen jëlee woon ci man xaqaiqul jazbi kon taalibe gannaaw bu amee fanaaw ba jeex ci yàlla mu gis sëriñ bi benn yoon moo gën ci moom mu gis yàlla junne yoon ndax yàlla mun na koo feeñoo ci lu ne waaye nag mu gis sëriñ bi nag moom ci tëjëli boobu noonu ci lay yokko moom taalibe moo tax baay mi ngi doon tagg ay ndaw yoo ànd ak moom dafa inna hunaka shubbaanan sigaaran qad su taxma shahawaati bàyyi mu na maa ngi ay ndaw yoo xam ne dem nañ ba fàtte sax caf kay bànneex ngir jege gi nga xam ne ñu ngi ko jege ak nekk gi nga xam ne ñu ngi ko nekk ak man di dund yàlla di jeex ci yàlla di jëriñu ci yàlla jëriñ loo xam ne moo leen ëppal leneen lu dul moom mu ne am na ci sax ñoo xam ne ay boromi soxna lañ waaye pour ñi dem ci seen soxna yi sax bàyyi moo leen jox ndigal waaye bil ikrah bu ñuy dem sax duñ bëgg a dem lim nekk ndigal bàyyi rek ci dem leen ci seen soxna yi moo tax ñuy dem waaye ñoom bëggatuñoo tàqalikoog bàyyi ngir bànneex bi ñuy am ci dend ak moom ci jëriñu ci moom ci dund yàlla ci yokkute moo tax bàyyi ne la del bëril looy takkoog sëriñ bi lakin isa lazam taw fil xaali bi waxtu woo bëree looy takkoog sëriñ bi bu boobaa dang ci amee xad tonowoo ci sëriñ bi bil bi ci amee ci sa mboole mi càkkuteef loolu moo nekkoon seen dars ñu ñëw ak ci juróom-ñaar fukkeeli dars ak juróom benn ba tey bàyyi di continuer ak ñun di wax ne waqad tafuuzu minhu bil adwa wa hiya dhabitatun inda rijali intabih mu ne yow taalibe bi waqad tafuuzu minhu bil adwa da nga sax ci taqoo bi ngay taqoog sëriñ bi bil adwa sëriñ bi mujj la wàll nga mujj nekk di sëriñ mujj nekk yàlla wa hiya dhabitatun tawàlle googu noonu lu sax la inda rijali ci góor ñi kon intabih na nanga gën a yeewu nanga nga gën a yëkkateyaat sa itte ci gën di takkook sëriñ bi ngir nga amee ci sëriñ bi wàll la ba nga mujj nekk di nit yàlla ni wàllu amee ci feebar noon la wàll amee ci wàllu yàlla boo toogee ku feebar feebar buy wàlle rek mu wàll la feebar ba boo toogee ngaana mu wàll la feebar yi ngaana ndax day wàlle waaye boo toogaaleeg nit yàlla dang ci amee mu wàll la nga mujj nekk di nit yàlla bëri na nit yàlla yu kawe yu éeg yoo xam ne li leen ko may mooy ànd ak nit yàlla moo tax bàyyi mu ne alxayru kulluhu fi soxbati yiw bépp ak yiw mi ngi ci ànd rawatina ànd boo xam ne ci yàlla la cheikh na ahmad tijaani amoon na taalibeem boo xam ne moolay abu nasr bi muy ñëw ci Cheikh na Ahmad Tidiane du gëm ko moo taxoon mu ñëw ci moom waaye li ko indoon mooy Cheikh na Ahmad Tidiane yàpp rek la daan lekk te moom dafa bëggoon yàpp léegi nag daan ñëw ci Cheikh na Ahmad Tidiane di ko waxtaanal di ko reeloo nekk benn comédien rek ngir mën di lekk ak moom lekk Cheikh na Ahmad Tidiane gu neex googu waaye nekk gi mu doon nekk ak Cheikh Tidiane di ko reeloo di lekk ak moom ànd boobu. ak toogaale boobu dem na ba wàll ko moom moo Mawlaay Abu Nasr ba mujj nekk nit yàlla ba bokk ci ñi nga xam ne fukki ñi Cheikh na Ahmada Tijaani jox lijaasa li talaaq am na ñu ba fukkook ak ñeent lim bi uute na waaye li siiw fukk moom bokk na ci yàlla mayoon na ko xam-xam yàlla mayoon na ko këcfu yàlla mayoon na ko tasarrufaat ba day soppandiku ci lu ne waaye amoon na këcfu ci wax lu ñëwagut te li ko indi woon ci Cheikh na Ahmada Tijaani duutoon lu dul comédie pour mën a lekk ci lekkam googu nga xam ne moom la doon lekk muy yàpp loolu rek moo ko indoon waaye barkeb ànd boobu noonu ci la amee dem ba bokk ci niti tariqa bi yu kawe yu foor yooyu noonu nekkee ci wali yàlla nekkee ci arif billahi moo tax bàyyi mu ne toog ak sëriñ bi mën nga cee amee waqat tafuuzu minhu bil adwa mu mujj la wàll ba nga mujj nekk di nit yàlla wa hiya dabitatun te loolu lu wér de andar rijaali ci góor ñi inta bi doyoon na rek lu yonantu wax ne al mar'u ma'a man ahabba nit ku ne nga bëgg di toogaale ak moom yéenay dëkk ëllëg kon bu wàll na la ëllëg yéenay bokk dëkk parce que yéen a nekkoon ci àdduna di dëkk loolu mooy seen dars ku ko doon juróom-ñaar dëppoo ak juróom-ñaar fukkeeli bayt ak juróom-ñaar waaye di la wax ne man lam yanal maarifata rahmaani fa amaaruhu daat madal azmaani bàyyi mu ne képp koo xam ne jéemoo sàkku xam yàlla wana ne fa amaaluhu say dund daat sànk na fa amaaluhu say jëf daat sànk na fa amaaruhu dundam daat sànk na mëdal azmaani diitab jamono téere bi fi dafa def fa amaaluhu daat mëdal azmaani say jëf yëpp perte na diitab jamono waaye aslu ba téere aslu ba aslu ba fa amaaruhu lañ ci defoon dundam perte waaye dundam perte na mooy ne jëfam perte na benn maanaa bi la waaye aslu nusxa bi bàyyi taalifoon fa amaaruhu daat azmaani moo ci ne bàyyi mu ne képp koo xam ne jéemoo sàkku xam yàlla moomu nga xam ne mooy rahmaan mu ne xamal ne yow sa dund sànku na madal moo xam nag diir boo mën di dund soo dundoon junne atit te jéemoo xam yàlla so dund gi sànku na soo dundoon ñaar fukki at it yàlla sa dund sànku na kon dund gu sànku mi ci ñàkk xam yàlla Malik ibnu Dinaar wax na ne masakin ahlu dunya mu ne ñooñ àdduna de ay miskin lañ xaraju minha wa ma daqu génn nañ ci àdduna te mosuñ la gën a neex lazza minha la gën a neex ci àdduna mosuñ ko te loolu mooy maarifatullahi wa mahabbatuhu loolu mooy xam yàlla ak bëgg yàlla mu ne ñooñ àdduna ay miskin lañ nekk nañ ci àdduna ba dem te mosuñ atyabaha la gën a neex ci àdduna mu li gën a neex ci àdduna mooy lan maarifatullahi mooy xam yàlla wa mahabbatuhu ak bëgg yàlla nit mënta bëgg kum xamut sa mbëggeel ci yàlla pour mu dëggu day laaj nga xam yàlla moom nga bëgg mooy kan moo tax bàyyi mu ne nit ki na góorgóorlu ci dundam ba lu mën di xewit ak dunduga nu mën di tollit na fexe ba xam yàlla ndax loo jaamu yàlla ak lu mu bëri bëri boo dundoon téeméeri at junne at di ko jaamu yàlla te xamoo yàlla mu na la dund googu sànku na te doy na ci tegtal rek jaamu yàlla gi yàlla soxla mooy nga teewlu ko moom yàlla jaamu yàlla bu àndut ak teewlu yàlla rek saxu la te ki xamul yàlla mënta teewlu yàlla kon say jëf yëpp nga koy jëf ngir jaamoo ko yàlla su àndut ak teewlu yàlla kon jëf yooyu yëpp neen la ndax amaa na nga askan ko keneen ku dul yàlla foog na yàlla nga ko jox te joxoo ko yàlla moo tax bàyyi ne jéemal a góorgóorlu xam yàlla képp koo xam ne jéemut a sàkku xam yàlla dundam perte na dundam niil na mëdal asmaani moo xam diir bu mu mën di dund nu mën di toll loolu yëpp ci perte nga la ko def loolu mooy seen dars ku ko doon def te seen bokk am ñu ñëw ak ci juróom-ñaar fukkeeli dars ak juróom-ñett bàyyi radiallahu anhu di wax ne xalaqtu dhal xalqa li yacbuduuni yaani bi yacbuduuni ay yacrifuuni la bàyyi nettali ko yàlla di wax ne xalaqtu dal xalqa li yacbuduni dama bind mbindeef yi pour ñi jaamu ma comme ni ko yàlla waxee ci alquran wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yacbuduni binduma jinne ak nit lu dul ñi jaamu ma bàyyi bu ne yaani bi yacbuduni li yàlla namm ci jaamu ko ay yaarifuni mooy ñi xam ko te ibnu abbas noonu la firee aaye boobu muy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni mu ne li ci yàlla namm mooy ñi xam ko ndax jaamu yàlla mënta wér lu dul ne danga xam yàlla boo seetee bayti bi jiitu bayti bi ci la la bàyyi doon wax naan man lam yanal maarifata arrahmani amaaruhu daat madal azmani képp ko xam ne jéemoo sàkku xam yàlla rek yow sa dund niil na sa dund perte na moo tax mu ne lu tax sa dund niil lu tax sa dund perte ndax yàlla bindeewuñu fi ci dara lu dut ñi jaamu ko afa xasibtum annama xalaqnaakum abadan wa annakum ilayna la turjaun yàlla mu ne ndax da ngeen a foog ne dama leen fay indi nii rek par hasard nii rek nii rek déedéet wala ndax da ngeen a foog ne du ngeen dellu siyaat ci man ëllëg kon yàlla daf ñoo bind ngir benn objectif objectif bi mooy ñi xam ko suñ ko xamee rek mën koo jaamu moo tax bu yàlla ne bind na mbindee fii ngir ñi jaamu ko waaye lim namm ci jaamu gi mooy ñi xam ko muy xadisul qudsi moo tax bàyyi di la wax na la kon ku jéemu ta xam yàlla rek yow sa dund niil na ndax loolu moo tax yàlla binduñu moo tax bàyyi na xalaqtu del xalqa li yacbuduni yaani bi yacbuduni ay yacrifuni yàlla dafa bind mbindee fi ngir ñi jaamu ko jaamu googa nag yàlla namut ci lu dul ñi xam ko ndax damay faral di wax lu bari ci dars yu jiitu ne képp ku xamul yàlla munoo jaamu yàlla ndax munoo koo teewlu te amaana jaamu goog ngay jaamu yàlla ka nga teewlu ci sa xel ne kooku mooy yàlla kooku nga jox jaamu gi te kooku du yàlla ndax li nga teewlu ci sa xel mi loolu yow yaa ko te yow yàlla moo la créé moo tax ku xamul yàlla mënta jaamu yàlla moo waral ku xamul yàlla su dundu niil la loolu moo nekkoon seen dars ki ko doon def di seen mbokk as ay dara dars ak juróom-ñeent Baye radiallahu anhu di continuer ñun di la wax na la laa juhdaka bi naylil idan tara ajiba qurba rahmaani bàyyi mu ne laa ta'lu juhdaka bul gàttañ lu sa itte mukk dégg nga taaliba bi naylil ci jéem a sàkku xam yàlla bo ne boo gàttalut itte ci jéem a sàkku xam yàlla idan bu boba tara ajiba da nga tara ajib da nga te lu yéeme loolu mooy lan qurba rahmaani mooy ni nga jegee yàlla mooy jege gi yàlla jege yàlla daf laa jege ba gën laa jege sax sa bopp da wax na yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam na ko ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun sama jaam yi buñ la laaje anama ne leen maa ngi nii jege lool yàlla jege ba gën ñoo jege suñ bopp ba wax ñu ne wa huwa aqrabu ilaykum min xablil di man yàlla maa leen gën a jege sax seen buumi xol kon ku dem ba gën laa jege sa buumi xol ak xol bi ni mu nekkee ci yow kon mi ngi lay woon na la yow kan man maa la gën a jege sa bopp moo tax képp ku xamut yàlla rek da ngaa jàpp na yàlla da laa sori fu mu gën a soree rek foofu ngay natt yàlla ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne yaraw nahu ba'idan jàpp nañ ne ma nga sori waaye képp ku xam yàlla rek wane raahu qariban xam na ne yàlla ngi jege ndax yàlla moo la gën a jege sa bopp boo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko ma jaam yi buñ la laajee anama ne leen fa indi qaribun maa ngi jege lool yàlla moo mën nga xam ne mi ngi jege lool ba gën laa jege sa bopp pour nga xam jegeem gi dafay laaj nga yëkkati sa itte ci jéem koo xam waxtu woo ko xamee rek da nga xam ne yàlla moo la gën a jege sa bopp te jege googu yàlla gën laa jege sa bopp moo tax bim lay wërloo boppam daf la wax na la jarul sori wa fii anfusikum afala tubsiruna ndax du ngeen ma gis ci seen bopp kon yàlla bi muy seetloo boppam kon seet bi jarut sori boo jàppee ne yàlla dafa sori rek mooy waral ngay seeti yàlla fu sori waaye ki xam yàlla xam na ne yàlla soriwul moo tax bi ñu yàlla di seetloo boppam daf ñoo delluwaat ci suñ bopp na an anfusikum afala tubsirun ndax du ngeen ma gis ci seen bopp yonent bi sallallahu alayhi wa nañu ku bëgg a xam jegeeg yàlla wala ku bëgg a xam yàlla jéema la xam sa bopp ndax man arafa nafsahu arafa rabbahu képp ko xam ne xam na boppam rek xam na yàlla ndax yàlla bi mu lay seetloo ci sa bopp la la seetloo na la ndax doo ma gis sa bopp kon boo delloowaatee sa bopp boo gis yàlla ci sa bopp rek kon bu boobaa waxtu yi nga xamee sa bopp rek xam yàlla loolu moo nekkoon seen dars lu ko doon def di seen bokk as ay dara salaam